mouvance euh, de euh, jàppale jigéen mm-hmm. euh, tey portrait bi nga ñuy waneel jigéen juy def cuuraay la xam naa képp réglement képp sa bisu Ndiaye su ma doon def ñu kooku def ni moom parce que cuuraay dafa dafa dafa dafa dox mm-hmm. mais moom jàmbaar a tax muy def business boobu waaw comme ni ko waxee jàmbaar a tax muy def business boobu ba tax na duñu yàggal dañuy dem xooli rapidement élément bi bu ñu ñëwee nag wax lan moo ko wund maa koy dégg mm-hmm. waaw la waaw dégg naa ñu ne dañ koy sàggalee jigéen ñi de doom ju am jom ñaanul papa ñaanul yaay ñaanul bàjjan man juruma ko waaye maa ko yar ci ko ju ne ci kumba maa ko ci def mu doon xale bu am jom nag daan dooleem rek bu xëyee mi ngi ci lii su wàccee mi ngi ci lii létt sax dina ko def lu mu am nag du ko lekk bàyyi ay waajuram man mi daf maa bëgg-bëgg sama yaay dërëmam bi maa koy daw sax dama koy daw di ko wax kumba bul ma may royul ci góor dara nag seetul ci góor dara mooy defal boppam asalaamaaleykum. waaw maa ngi naa maa ngi commencé 10 000 francs ba ma commencé 10 000 francs ba léegi maa ngi sant yàlla ndax suma jaayee ba wàcc maa ngi am ñetti téeméer bénéfice boobu léegi nag bàyyeeku ma benn yoon. léeg-léeg nga dugg salon nit ramasser sa bagage xool ba mu neex ko fekk ki bëgg a jënd bëgg na loolu mais moom du ko jënd day xool ba mu neex ko teg ba kooku dem mi ne la merci mais dañuy muñ xam ne ñu ñooy jaaykat ñu ñoo bëgg. clientèle dañuy muñ la toog léeg-léeg nit lépp la bala mu ngay jot ci xaalis bi danga day doy waar xamel moo tax nga lebal ko ndax ñu ñëpp ay jigéen leen dañuy daan doole mais danga koy lebal ba pare bu yàggee lu la naqar ci gis waa sant yàlla nag maa ngi ciy jëriñu bu baax voilà donc gis ngeen portrait wu euh, mhm. kooku euh, jàmbaar la de ah. jàmbaar jigéen ñi yàgg nañoo dégg jàmbaar ah ci Sénégal. oui effectivement comme ni nga ko waxee parce que moom déjà li ma ci njëkk marqué mooy femme boo xamante ne déjà dafa divorcé yore ay doomam. Mhm. waaye biñ ko laajee depuis kañ la commencé naam yàgg na mais 10 mille francs rek la commencé moom la jël commencé di jënd cuuraay nee na di wër di dem ci kër yi. Mhm. di jaay ba yàlla indil ko li nga xamante ne tey mun na ci yor njabootam et tout ça. mais saa su ne tamit jigéenu jàmbaar yi tamit dañ leen war a parce que comme ni ñu koy waxee c'est vrai que mi ngi daan dooleem. Mhm. bu ko dégloo nee na 1500 francs donc la ci am comme. bénéfice parfois ñetti téeméer lay am bénéfice mais teewul mu ngi góorgóorlu quoi di jaay mi ngi góorgóorlu parce que ñetti téeméer yooyu amaana. Mhm. bu fekkee chaque la boo ko dajalee weer dina la mën a dimbali. te di ci mhm. mën a fayal say école doom doom ak yeneen ak yeneen. mais tout le temps inconvénient yi mooy sénégalais wala nit koo xamante ne saa yu nit ki di daan dooleem ñoom amaana du ñu seet bénéfice bi wala ni nga ciy sonnee dañuy gis sa dara jël ko waaye dinañ toog lu yàgg duñ ci la fay sax duñ la fay. te yow balaa surtout njaay yu sew yooyu ay looy jaaye téeméer looy jaaye 5000. même borom buñ la ko lebee rek dañ dañ lay gaañ. même borom table yi démb borom caaf bu ñu wax nee na léeg-léeg nit dina ñëw ngir ko da ngay jékki saa rek ne ko maa ngi jël ba suba léeg nga toog lu weer te kenn ko xam nga. mën naa mi kaay man tey dama bëgg a def <laughs> benn aveu man barki sëriñ Touba mhm. mos naa romb côté Yoff fajar bi noonu wallaay sama xel dem ci ku doon jaay ndambe waaw ma ne ko waa xàmmee barke Serigne Touba mu lebal ma pain dambe ba léegi gisuma ko. t'as vu imaginer ah, bu ma gisee nag. waaw ah, waaye dama ragal jaaykatu ndambe yëpp ñëw tamit. <laughs> est-ce xàmmee nga ko loolooy wax bi. man xàmmeetuma ko mais damay ragal jaaykatu jaaykatu ndambe yëpp ñoo fayee fayee ma seen ndambe ñëw leen rek waaw wóorul de ku fi jaay jaaykatu ndambe yëpp nu ma leen je pense que nekkatul foofu je suis repassé par là-bas mais gis pour fay de moo tax ñuy faral di wax naan njaayum Dakar sax boo ca amul fulla ma ñam jeexal ko waaw ma ñam jeexal ko waaw il faut nga ci li ngay def am na aussi boo xamante ne dafa marqué comme ay doomu xale la am ndeysaan benn doom bi dafa wàcc rek nga gis mu teg saagam commencé jàppale yaayam muy sol gowe yeeg yooyu donc ça m'a beaucoup marqué du lenn loo xamante ne doo ko mën a di dugal mais bi a ko laajee mën na ko waaw loo màggee boobu mu ne ma bëgg jàng tekki bu ma jàpp dimbali sama yaay man ne ko tax nga bëgg dimbali sama yaay mu ne ma daf may jëndal bonbon donc bu tuuti boobu rek donc mi am ay projet yoo xamante ne maanaam daal comme ni ñu ko waxee sargal jigéen ci weer bi la mais saa su ne tamit war nañ leen sargal wala bu ñu gisee ñu mel ni nga xamante ne gëm nañ seen bopp di daan seen doole parce que xamante ne safaan ba it nañuy doxee ndax dañuy toog rek ràcc ku ñëw awaana comme Pape Cheikh baax jox la nga jël bu demee nga xaaraat daxin ci kër jeeg xam naa la bu baax xam naa la kumba kumba ay ay junni ay junni <laughs> mbaxal laay joxe ma waaw waaw dépasse suba dama bëgg a añ si defal leen ma daxin oui <laughs> Alfi euh, juste euh, à ci li ngay wax parce que dañu nekk famille boo xam ne dañu am jom nekk liberté 4 moom ak grande sœur am dañu amoon benn genre cantine bu ndaw ñu ngi ko defoon ci ginnaaw euh, centre culturel bi nekk Liberté 4. moo ko sëram Ndey Kumba mhm. ubbi fa seen salon di def seen ay pause di def seen ay pause euh, bët bu korite daan jot wala tabaski Liberté 4 yëpp dañuy ñëw di faran ay 3 heures du matin te boo leen gisee tey moom bu toogee rakkam ñëw andi ay cuuraayam dañu mel ni suñu yaay suñu yaay dañu ba léegi dañu am seen ay boutique di ubbi ba léegi dañu dañu mànkoo famille lañu ndeysaan jàmbaare ah. ci moom Ndey Kumba ay ay sœur man sama yaay di daan jaay glace di lay pap si glace crème tout ça hmm. jàmbaare jàmbaar rek parce que njaay itam dafa nekk loo xamante ne dafa dafa barke njaay dafa baax mm-hmm. parce que même 1500 bénéfice mm-hmm. bul xool 1500 mais xoolal nit yi ci te kaay ma wax la bénéfice bi ngay xeeb xaalis bu barkeel xaalis bu barkeel xam nga bu barkeel téeméer yu barkeel wallaahi mbay loo ci wax xam naa daal bàyyi Cheikh sañu ma noppi waaw tey koppati bi mm-hmm. ndeysaan noo bokk maam mm. maamam ma nga xëy njanjaar sugeer kon kii nii la mën a mel maam Bakar lu tudd. kii ñi mu doon. nii mu mel noonu la war a mel. man de kontaan naa loolu. Ah. xam nga mënoon nañu wax ba génne image bi. Mhm. du ma ci sax wax. Mhm. waaye daal dëgg-dëgg ci ñu doon gore ak baax. Mhm. ci askanu ngéwélu mag woowulee. ma mii ci la bokk. ndax maam Bakar maamam bañ waali ma ci Congo masata gile maa fay ngaay loppul gile maa fay mbaay xaj dama bi ci forbot dama de bu mel woon nii man dana ma jaaxal Amadou Mbaye Diaw vraiment kontaan naa loolu ci reportage bii nga def te xamoon di nga ma sax xam nga ndax xamoo ko xamoon sama mbokk wala moo tax le monde le monde est petit de le monde est petit moo ma booleeg moom mooy euh, boppam Ndeye Coumba ci am jomam ak njàmbarteem eh, passé waxoon naa ko ñun de kontaan nañu bala ngaa xam ne le monde est très damay turne benn émission à l'époque elles sont toutes belles xale bu jigéen bu rafet métis la ñu koy mm. defandoo ma taxaw di tourné ak moom émission bi benn maire bu ma doon jàng russe xam nga man jàng naa làkk yëpp maire bi di romb ma taxaw ak xale bu jigéen bi ne kii de moo ñu doon jàng russe waaye maire bi comme gunóor euh. xale bu jigéen bi ne ma c'est ma mère ma ne ko noonu pourtant dafa niroog sama yaay nag pour dalal xolam. ay Pape le monde est très petit. Pape toj nga ma yee Pape toj nga ma man bu daal suuf laa jël di woo. yaay rek xelam daal mu bañ a jàpp ni yaayam rek a niroog ah <laughs> nga ne mais métis quoi. cest bi tubaab la euh, moom papaam. non pas cher mais métis xam nga dañu rafet. par exemple Alifa dafa ñaaw mais euh, doom ji Leonardo il est il est très beau mais je te jure barki Serigne histoire dëgg la dañuy tourner elles sont toutes belles bu côté université ma taxaw xale bu jigéen je veux juste vous le monde est petit donc faites très attention xam leen li di wax mais xale bu jigéen bi dañoo taxaw rek mère bi doon ba ne ko kii de mooñ doon jàgg rus waaye rus waaye ne ma ko ak sama yaay

wax ji fee comme quoi ñëppay jëw mais éviter ça mm-hmm. le monde est petit nga wax euh, portrait di mbokk élage euh, boo waxoon lu ñaawit euh, mën na ko naqari mais vraiment jigéenu jàmbaar la te mm-hmm. Sénégal bëri na ay jigéenu jàmbaar d'accord mais merci Mado pour ça lundi prochain ak mardi prochain ça toute la semaine ba le 8 mars tous les jours di nga waxtaane jigéen ñi à propos du 8 mars nag am na ay programme yu am solo yu ñu leen di pareel cette année li ñu bëgg ngeen préparer ko mooy ab gëstu nii waneeguñu ko mais depuis lors euh, Zeyna tu es en train de préparer ça. oui Pape Cheikh maa ngi koy préparer parce que depuis des années. parce que ça m'a toujours fait mal. parce que ren la ñu doog a nangu ne tu es une femme tu été enfant chat depuis très voilà, longtemps depuis mais années, pour la première fois euh, ñu dugal la nag léegi ci loolu femme yi dugal ma man maa jox sama baat. Euh, ma wax si li nga xamante ne moom laa xalaat. jéeg yëpp noppalu parce que ñii yëpp jéegu télé bi yëpp noppalu nag le huit nga wane sa bopp nag. waaw le huit incha allah ma wane sama bopp Pape Cheikh euh, c' est juste que au départ li tax ma ma def ko au départ daf ma metti woon journée de la femme. Hmm. bi ñu koy féete alors ñun suñu amee benn jour kon góor ñi am nañ 364 wala 365 jours. on a pas de jour arrête avec ça. non au la woon et c'est à partir de là ah, ah. et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des recherches si lan mooy 8 mars. Mhm. lan mooy parité. Mhm. lan mooy égalité. Mhm. lan moo waral 8 mars c'est à partir de là que laa commencé def recherche yi. léegi bi ma defee ba pare nag alors le 8 mars dama exposé juste sama vision du 8 mars li nga xamante ne moom laa ci xalaat. ok donc donc tu, tu n'expliques rien est-ce qu'on peut regarder juste un un petit truc pour voir euh, lan lay préparer ouais. notre nouvelle diète de la télé. <laughs> Aujourd'hui, je n'ai pas envie de me faire belle, encore moins de sourire. Je n'ai pas ce maquillage avec lequel vous avez l'habitude de me voir, tout simplement parce qu'on est le 8 mars, journée de la femme. Et aujourd'hui, en tant que femme sénégalaise, je me sens humiliée. Peu importe la femme que je suis, peu importe ce que je fais, peu importe d'où je viens, j'ai des droits. Cette journée est la mienne, je les réclame. voilà ma vision du 8 mars le mardi bi bu soobee yàlla à partir de 21h. voilà ci télévision Futur Média. ça sera mardi prochain. incha allah